nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci ànd bi yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 li a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doon rek wàllum ger gi nga xamante ne rek doomu Mansour Faye ji la nag di wóy ci turu Aïssatou fay daal dina koy def ñaari policier yi nga xamante ne rek ñoo ko doon liggéey foofu ca diwaan bu Kébémer daal dinañ leen sanctionné yëf ya nag mi ngi am biiru mag ginnaaw ba journal bi di bés bi le jour daal di koy fësal ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy suñu nattangooy Seneweb daal di koy jëlaat ci seen édition bu tey bi ñaari policier policiers yi nga xamante ne rek ca diwaan bu Kébémer lañ doon euh, servir ñoom ci seen jëmmi bopp rek daal di nañuy jot nag ak mbuqus xaalis bu takku rek euh, ci ki nga xamante ne rek moom mooy doomu ancien ministre ba woon di Mansour Faye di wóoy ay Aïssatou Faye euh, police nag ginnaaw investigation bi nga xamante ne rek jot na ko def daal di nay dëggal na yëf yi rek daal di nay am waaye nag daal di gul ci addu ñeel sanction wala leneen ak leneen yoo xamante ne rek fas yéene na ko def ñaaru agent yooyu ci ab communiqué bu tukkee ci bureau relation publique bu police nag ginnaaw rek bi ñu ko fësalee nit ki tey jii ci yenn kay bii di la quotidien bés bi le jour nag euh, site Seneweb daal di koy fësal nit ki tey ci talaata ji yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ci atum 2024 bi mu nekk xibaar boo xamante ne rek jamono ji jot nañ rek ab ger dëgg la ñu daal di ci dugal nag ñaari policier police nationale ci jëmi boppam rek jéem na segg dëgg ji xool rek ba xam jëf yi am na wala amul mu uute lool ak li nga xamante ne rek jotoon nañu ko wax ni ki ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril eh, ci atum 2024 ginnaaw bu 13 jotee ne nañ commissariat urbain bu Kébémer eh, dafa daal di jotoon ki nga dafa daal di dalaloon kii di Aïssatou Faye nga xamante ne doom la ci Mansour Faye rek eh, ginnaaw nag bu ñu déclaré que ne moom ci jëmmi boppam rek jot na joxe du toll ci 300000 francs ay policiers yoo xamante ne rek dañ ko doon négocier ak moom ngir mu mën a jàll nag yëf yi mu ngi daal di xew ni ki talaata yemook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril ci atum 2024 bu 15h jotee foofa ca diwaan bu Kébémer ginnaaw audition yi nga xamante ne rek daal dinañ koy def daal dinañu dëggal nag que ne contrôle bu nu mel naam am na waaye nag gis nañ ci koppar yu takko takko yu toll ci ñaar fukki millions ak benn yoo xamante ne rek kii di Aïssatou Faye yore woon na ko ginnaaw contrôle bi nga xamante ne rek defoon nañ ko ba gis boobu lay xaalis ñoom ñaari agent ci seen jëm boppam daal nee nañ nag dañ ko waxoon le ko warta dawal warta circuler ak xaalis bu nu mel rawatina nag mu nekk xaalisu liquide eh, ci mbir mu nu mel nag ñoom ñaari agent yooyu ñëpp ginnaaw menace bi nga xamante ne rek doon nañ ko def soxna soosu nag eh, moom nag dafa daal di génne rek trois cent mille francs daal di leen koy jox ginnaaw investigation yi nga xamante ne rek eh, ñi ko doon def di chef bu service ñoom ñoo daal di xam ne rek ba ñu identifier nag ñaari agent police yi nga xamante ne rek ñoom lañ cay tudd ci ab interrogation nag bu ñu leen dalalee ñoom seen jëmi bopp rek dañoo daal di wax ne rek nag dañ leen ko may waaye nag nekkul ne benn yoon ñoom ñoo ko daal di ñaan dañ leen ko joxoon rek te yàlla tax waaye agissement yu nu mel nag mu nekk mbir moo xamante ne rek mbir mu garaaw la jamono ji nag autorité policière ci seen jëmmi bopp rek jël nañu lépp luy mesure ak disciplinaire yoo xamante ne rek moom la ñu teg nag ca boobule bërëb mu ñeel ñaari fonctionnaire police yi nga xamante ne rek daal dinañ leen fekk fi nga xamante ne foofu lañ doon defee salle de cours ñu daal di leen fay yëkkati bu ñu sukkandikoo rek ci bureau bi relation publique du ñàkk di dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaayu xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abone bés cloche de notification yi ngir dara bañ leen na raw